Mang ngi leen di fay Demba mang ngi lay nuyu bu baax maa ngi lay sant bu baax di la remercier aussi si interview bi eh, di nuyu mbokk tuan Peulh ñàkk yëpp ñàkku rab mang leen nuyu ñëpp di leen sant. tey bis bi boo waa journée tey bi dañ koy tënk si fànn yu bari eh, dañu organiser woon benn journée de dépistage par rapport ak octobre bi. donc mu buñ mois d'octobre, ko mois d'octobre rose la donc c'est juste pour euh, saytu euh gu jigen en général donc tay dañ doon def euh, dépistage cancer du sein dépistage cancer du col de l'utérus dépistage euh, diabète dépistage anémie en même temps vaccination Covid avec vaccination HPV mooy contre cancer du col de l'utérus pour xale yi nga xam ne ñu ngi am juróom-ñeenti at ba fukki at ak juróom. macha allah bi chaque année dañ koy def chaque mois d' octobre dinañ am benn journée boo nga xam ne dañ koy dijjee que jigéen ñi en général. Mm-hmm. waaw comme tous les jours nit ñi ñëw nañ vraiment mais lu doy ni Tiwaawan nit ñi mënoon nañ gën a ñëw donc mën naa ne xëy na information bi peut-être moo des macha allah nag ñi ñëw nañ parce que ba léegi nii presque vingt heures vingt une heures ñi ñaa ngi ñëw continuer ñëw ñu ngi liggéey aussi. Ça femme yi waaw ñu ñu ñu ñu jàmbaare lañ ñu ngi fi depuis ce matin ba léegi nii kenn jógul donc loolu aussi vraiment dañu koy rafetlu bu baax a baax mais euh, affluence bi mënoon na ëpp lii naturellement mais tey boo doon xayma tey ñi nga xam ne ñu ngi wuyu si bés bi ay ñaata la. waaw ñi ñëw war nañ ëpp sax téeméeri nit. bu fekkee ne jigéen ñi la ñi doon saytu seen cancer du sein ak eh, cancer du col de l'utérus ñeneen ñi ñëw aussi pour dépistage diabète bi ak pour vaccination aussi ëpp nañ 200 personnes donc vraiment ñi ñi ñëw nañ vaccination Covid bi aussi gis nañ ne ñi ñi ñëw nañ vacciné wu ñi nga xam ne jëloon nañ deux doses ñëw nañ def seen troisième dose. Sinopharm nos nga xam ne ñëwoon nañ def seen euh, benn dose Johnson ñëw nañ def seen deuxième dose Johnson ñuy fàttali rek population bi que euh, Covid bi mi ngi fi Covid bi nak ñi dañ ko xawa ragal mais il faut que ñu bañ ko ragal parce que fièvre lo bo nga xamné comme grippe la donc grippe ñun ñox moma a xam nañ ko fièvre lo nga xamné comme grippe la sauf que mm, ñi mu gëna mëna sonal moy ñi nga xamné dañu am tard ñi nga xam dañu am diabète wala tension wala asthme wala yenn fièvre yu grave yi bu leen dalé mën grave donc pour tuñu dal ñooñu ak mag ñi il faut que ñep en masse ñu ñëw vacciné wu bu ñep vacciné woo c'est sûr que fièvre bi mën fi taxawaalu mais du lor ken du lor ken donc lool nañ ko baye xel bu baax nekkul ay naxate nekkul ay fo euh, fièvre la mi ngi fi ñi ngi dëkk ak moom

Euh, commune bi une vingtaine de postes de santé Et mën naa ne commune bi euh, soo xoolee ba maximum 5 postes de santé fi si fu waroon mën a am vingt donc commune bi dafa soxla un centre de santé poste bi li presque mën nañ parce que poste de santé warul am plus de 6 personnes Nous, on est presque 24-25 personnes Nous, nga xam ne ñu poste de santé attanul recruter des personnels qualifiés mais tey ñun li ñu recruter ci personnel qualifié mat na quinze te lépp CDS bi moo koy fay te dafa metti dafa diis trop trop trop trop ci CDS bi doo mën a réaliser dara man damay joxe exemple rek bi may doogu ñëw Tivaouane Peulh ci deux ans ñun ak comité de santé bi tabax nañ logement sage-femme bi ñun ñoo ko tabaxoon réfectionné nañ poste de santé bi karale defaraat fii ba mu rafet defaraat maternité bi te boobu temps parce que personnel bi wul won donc lolu fonds CDS bi moko ko tay CDS bi dafa recruter autant de personnes yo xamné c'est des personnels qualifiés donc mënatul def réalisation yi mu doon def bien que ñi ngi góorgóorlu bu baax baax mais buñu jappelé franchement ñu jël. est-ce que maire itam mu ci <coughs> bon maire euh, tout au début japp na ci bu baax amna côté yu bëri yo nga xamné mu fi doon jàpp. Euh, mais pour le moment, on a vraiment besoin de lui. On a besoin de lui. Ambulance, mais ça fait plus de deux ans. Donc, bâtiment, malgré CDS, il fait efforts. Actuellement, il y a des défarats, étanchéité, mais bu nous surtout ci bâtiment yi ñu en extension nous ñu logement ICP sage-femme nous ñu aussi ci fay personnel bi soxla nañ ko trop trop wax tey gannaaw ba nga lancé message bi nga xam ne ñu ngi utile lan nga bëggoon waxaat tey ci lu ma la ci loo bëggoon tey wax te laa di ma la waaw xanaa di ñaaxaat ba tey rek maire bi eh, di ko wax ne ko soxla nañ recrutement personnel personnel bi mu wàññin ñu ni ñuy fay recrutement beneen chauffeur apparemment promettre nañu ko muy deuxième chauffeur au moins defaral ñu ambulance bi soxla nañ aussi logement ICP ak sage-femme au moins man ma mën a dëkk ci biir poste bi parce que lool lool mom la charte yi santaane waaw lool mom soxla nañ ko di lancer wala appel aussi monsieur Amad Diouf le directeur des infrastructures mu jappalé ñu ci matériel ak équipement voilà. Wa, kon ngi remercier yow particulièrement caporal de la santé de la gërëm de la ñana ci kaw ci kanam mais ma ngi remercier aussi l'équipe du poste de santé l'équipe du poste de santé sama ko waxee bàyyuma kenn moy la maîtresse sage-femme ak ñi nekk maternité yépp moy le personnel bi nekk côté médecine ñépp bàyyuma kenn ma ngi remercier ñépp ñépp euh, di remercier aussi comité de santé bi nga xamné ne duñu tànqam lu dara duñu tànqam lu dara duñu comme lu dara duñu laaj dara te demuñu lijeenti ko ñëw indi ko té aussi ñi ngi def ay effort par rapport ak li nga xamné mom moy yoon li ñu mën ak li ñuy mënul ñu ngi koy def di len sante di len gëram di remercier ñep ñep vraiment. merci beaucoup. merci beaucoup. salaamaaleykum mbooloo mi ku ci nek ma lay nuyu sa tur ak sa sante dila jaajeufal ma ngi tuddu Amina ndjay nekk maîtresse sage-femme poste de santé Tivaouane Peul toog ak sama naataango bi euh, nekk sage-femme Sarata nekk poste de santé Tawféex. tey journée bi boo ñu ko doon euh, journée tey euh, dafa organiser woon benn journée. ñu ngi nekk ci mois d'octobre. Euh, mu nekk mois boo xamante ne dañ ko jagleel jigéen ñi euh, district Sangalkam boole euh, jigéen sage-femme yi boole jàppante loxo pour ja jàppale sunu jigéenu askan. ba nga xamante ne poste santé bu nekk dafay organiser benn journée boo xamante na pour sa waa askan la say naataango teewe ko jàppale la pour que ñu mën a saytu. doomu jàngoro bi nga xamante ne moom mooy doomu jàngoro cancer cancer ci jigéen cancer ween ak cancer butitu njurukaay euh, tey ji nag Tivaouane Peulh daf ci boole woon yeneen euh, kii euh, càmbar lu mel ne bu tension bu jabet wala bu anémie boole ci aussi vaccination pour xale yu jigéen ñi am 9 ans ba 15 ans boole ci aussi vaccination Covid bi bi nga xamante ne képp koo xamante ne rek uh, yaa ngi ci biir uh, askan wi war nga ko jël def ko sa yëf te mën a aar sa bopp aar sa njaboot mais journée bi li ko gën a wund moom moom mooy uh, cancer col de l'utérus mooy bëtutu njurukaay jigéen ak ju kii cancer wen population bi. macha allah macha allah am nañ euh, benn euh, kii population bi ñoom nañ dépisté nañ bien que ne nag bëggoon nañ mu ëpp ko bu baax parce que population Tivaouane du population bu tuuti. e ñi ñi yeewoo Tivaouane aussi nekk nañ nit ñoo xamante ne dañoo jàmbaare bëgg nañ seen bopp xamante ne suñu organiser dara dañ koy dañuy ñëw waaye daal euh, réussir na. quoi qu'on puisse mën nañ wax ne on a réussi parce que nit ñi wuy si nañ ñu def nañ dépistage euh, bëri na ñi nga xamante ne euh, macha allah dañ leen yebal kër docteur pour ñu gën a saytuwaat seen yaram donc mu nekk journée boo xamante ne jigéen ñi euh, kii nañ ci sauté nañ sur l'occasion pour xool seen yaram macha allah. mën naa wax ne journée bi ñu bari jàpp nañ ci ma ci ma ci profito remercier sama collègue yi nekk district de Sangalkam parce que euh, yore sa poste bàyyi sa liggéey ñuy jàppale sa doomu ndey ko ñàkk ki ñaan moo ko mën may jaajëfal aussi suñu euh, comité de santé parce que tànqam loolu mënoon nañ bëgg te ñoom dañu nangu su boobaa day xaw a dëgër ci ñun may jaajëfal euh, bàjjanu gox yenn yi parce que liggéey nañ am na ñu ñu yónni bien que ne nag bon nit ki li nga bëgg ak lii am lolu euh di jaajeufal aussi di jaajeufal aussi euh, euh euh waa Maristop parce que waa Maristop ben euh, ki la keur go xamante ci santé la bok go xamante ne danañ jàppale jigéen ci planning danañ jappalé jigen ci dépistage cancer du col dinañ jappalé jigen ñi ci euh, traitement infection du bari waa Maristop jàppale nañ ñu aussi ci matériel maa matériel bi nga xamante ni moom lañuy ñuy utiliser pour dépistage di jaajëfal aussi euh, benn laboratoire Kadi Kadila jàppale nañu aussi ci produit di jaajëfal aussi Basirou Ka jëwriñ di jaajëfal aussi euh, Diawara monsieur Diawara jàppale nañu aussi ci matériel kulim djum euh ñep japp nañ ci machallah kulim djum euh ma leen di ñaax rek ñu gën ci japp parce que dañuy wax rek kenn mo xama lu kenn man ñaar ko ko dàq sànq ba yaa ngi macha allah dégg ma ci turu ana la jotuñu ko euh, ja su ma nit ku ci nekk da dangay wax li nga xamante ne moom nga xam jëm nañ ko woo jotuñu ko euh, insister nañ jotuñu ko du ko dem dem nañ ak euh, suñuy mën-mën mais bu ñu fàtte ne santé kii la compétence transférée la suñu jëlee santé jël ko bàyyi ko ak mairie bi mairie bi warul taxaw di xaar ñun ñu ñëw ci ñoom ñun dañu fi teg pour ñu liggéey waaye seen kër la

côté santé man dama naan déedéet te te euh, commune bi du benn post yaa APIX yaa Tawféex yaa euh, Tivaouane Peulh yaa ñàkku rab maintenant yaa ñàgg donc nekkul commune bu ndaw ngandam commune la et ngandam commune ça veut dire que soo bëggee sa askan jëm kanam il faut que nga jàppale la santé santiroo santé bi Euh, commune de de de Tivaouane Peulh c'est grave hein. je ne connais même pas. Euh, du du du du du mandat mandat bi du mandat antérieur. am. Cela veut dire tout juste que ça les intéresse moins je dis pas pas mais ça les intéresse moins.

ñun amuñu lu dul ñoom seen seen taxawaay. santé doo bàyyi ba feebar ba ne këpp taxaw pour dem santé dangay dem de temps en temps di saytu sa bopp. di toppatoo sa bopp. may gën a kontaan di gën a sargal di gën a jaajëfal samay collègues. parce que y ay doomu ndey lañ euh, ñoom suñu ayee man damay dem. ñoom suñu ayee man damay dem ce qui veut dire que nous ñun beaucoup bokk commune bi ñooy joxante loxo donc euh, maa ngi leen di ñaanal di leen euh, sant di leen sargal pour ñom ñep di sant aussi euh, comme kii bi district bi yeb parce que ñoo togon waxtane ne dañuy def journée pour suñu gox et je pense que ne commencé nañ ko y a un programme pour le district donc ñing koy dérouler tranquillement et maa ngi leen di sante yeen ñep macha allah jërëjëf. ñoo ko bokk euh, madame Nana la. Amina Ndiaye. madame Amina Ndiaye jaajëf. di jaajëfal itam sa collègue bi. Mhm. xam naa incha allah man personnellement dinaa ñëw fi nga xamante ne moom mooy poste de santé Sokabeda. Ah, mhm. n'est-ce pas. Mhm. waxtaanee li moom mooy santé waxtaanee itam seen problème waxtaanee itam euh, carrément. Euh, ci ci ci ci carrément poste de santé bu. Sokabe ak lan mooy seen problème ci ah, lan la ñuy dox wala leneen ak leneen daal ñu gën a xam daal. incha allah incha allah ko def bu soobee yàlla. kon jaajëf kontaan naa a baax.